bonsoir chers amis fidèles téléspectateurs de la zone 7 TV te dañuy amaat euh, mbégteeg bànneex bu yaatu yaatu comme ni ñu koy defee chaque euh, jour rek donc ñu ngi fii ci camp de jeunesse voilà nekk euh, fii ci diwaanu Bambilor ñu ñëwoon fii am fi benn entretien exclusif rek ak ki nga xam ne moom mooy Omar Gueye Junior ñu gën ko ràññee ci langue politique bi. donc ñu fas yéene woon euh, sekk ak moom benn euh, waxtaan def ben genre débriefing si li nga xam xew fi ci diwanu bambilo actuellement donc mu nekk euh, un candidat aux élections à venir fi ci candidature au niveau des des élections locales fi ci diwanu bambilo donc dañ koy bàyyi rek mu présenté ak les fidèles téléspectateurs de la zone CTV. TV tonton ñu ngi lay nuyu. waaw ma ngi leen di ma ngi leen di fay di leen gërëm di leen sante ci occasion bi ngeen ñu may pour ñu mën exprimer wu ci par rapport ak euh, li nga xamné motax ngeen ñëw fi mm-hmm. parce que defe naa dafa am benn reportage bu ngeen def. ci benn action bu ñu def ci dëkk bi. Mm-hmm. donc occasion bi ngeen ñu may ñu expliquer ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant. Mm-hmm. d'abord fi ñu commencé moy nuyu. le chef de village de Bambilor. les les délégués de quartier de Bambilor. population Bambilor goor digeen mag ak ndaw. donc man Omar Junior laa donc dëkk Déni Biram Ndao mais dëkk Bambilor aussi dëkk commune Bambilor donc di responsable politique donc man maa jàkkaloog yéen di leen nuyu di leen sant di leen gërëm

waaw loolu moom expliquer parce que defe naa képp Bambilor situation bi nga xam Bambilor Bambilor dans son ensemble defe naa ñëpp gis nañu ko muy la metti mais initiative bi mënu parce que même su ma volonté aussi mënu ma woon jóg rek donc xalaat dafa am fu mu jaar je pense que am na ay yu toog fii groupe la bu wax Euh, samedi bi nga xam ne dafa am ku fi doon def benn meeting la veille vendredi lañ ñëw fii seet ma ne ma daal ñoom dafa am koo xam ne dafa bëgg def loo xam ne li yàq lay def parce que mitin lay def boo xam ne bii def ciy dépensé ay millions ñun nag amuñu mënuñu mais dañuy seet responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci commune Bambilor képp ku leen mën a jàppale pour que ñoom ñu jéem a xool pendant kenn di yàq ñoom ñuy xool nan la ñu defaree jour boobu ma am lu ma leen jox dem. Euh, le samedi le jour du meeting ma dem seeti benn responsable bu nekk Bambilor mu tudd Maam Onge Gueye muy benn ak benn responsable PDS mu waxtaanee ak moom pour ma ànd ak moom ak ñeneen ñu mel ni moom ci combat bi nga xam moom lañ nekk mooy jut électorale yi nga xam ne dafa war a ñëw le 23 janvier 2022. mu ne ma mën de pare naa pour ànd ak yow parce que xam naa la xam naa sa jikko xam naa intention yi nekk si yow xam naa say ambition. donc ku mel ni yow moom ànd ak yow ànd ak moom moom daf may neex ñu waxtaan mu ne ma nag mais nag am na loo xam ne lii bëggoon naa ko li ma bëggoon mooy nga jàppale ma ci Bambilor parce que Bambilor dafa feebar comme màgget foo laal day métti situation bi fi nekk moom metti na plus particulièrement rek fii nga xam ne moom nga jàkkaar lool fekk boobu ñu ngi si tali bu xonq nga xam ne kenn mënu fa jaar parce man bi may ñëw sax sama oto fële laa gaar sama tànk laa da ngay jaar ci rebord bi pour mën a accéder këram mu ne ma lii daal laa xam ne boo ko defoon man de dina ma gën a jox courage te dina mën a tax ma waxaat ñeneen ñu mel ni man ñu ànd ak yow pour defar Bambilor ma ne ko wax dëgg yàlla loolu moom man dama ciy sawar parce que man képp ku ma xam xam ne defar rek laa xam te loolu c'est pas la première fois ma def ko am na fu ma dëkk Déni Biram Ndaw laa dëkk moo tax tey rusuma par exemple def lu mel ni la ma def déen ma def ko faneen parce que déen faut pas ñu dañ foo ñu wax li am benn am na action moo fa def boo xam ne bu ma ko def aussi dañ ñëw sollicité ma am nay temps ñu toog presque que an boo xam ne bi électricité bi ay quelques lampes ñooy takk ay jeunes regroupé wu comme ñii ni ñu defoon ñu waxtaan ak man ñu waxtaanee ak man ma xool ñu def devis du ma wax montant bi mais yàlla defal ma sutura ma taxaw ci jàpp ba defar ba dëkk bi yëpp leer donc su ma defee lu mel noonu fa nga xam ne fa laa juddoo màgg fa yàlla dogal Bambilor aussi tey yàlla dogal defal na ma sutura am naa fi kër fi laa dëkk li ma dëkk déet noonu laa dëkk Bambilor am fi mbokk am fi lépp nag bon su amee lu mel ni Bambilor dama ci war a taxaw comme na ma taxawoon fële donc loolu moo tax bi ma ko waxee ci quoi que le samedi la ma ko wax le lundi ci la ñu démarré defar tali bu xonq ñu jël jënd jël ay camion jënd jënd latérite jënd loué pelle pelle mécanique yëpp sur fond propre def ko nag te yàlla tax ak bëgg dëkk bi war a dëkk bi donc loolu moo tax ñu def ko yàlla dogal bi ñu ko defee ba pare ah comme li ñuy wax l'appétit vient en mangeant nit ñi gis ne bayaal boobu nga xam ne moo moo mooy bayaal boobu ndox baa ngi fi xale yi amul fu ñuy fooye mag ñi fa daan toog man amatuñu fu ñuy toog donc ñu ne daal bon comme def nañu lii wax dëgg yàlla nit ñi apprécier nañu te lii aussi soxla la nañ ci jéem a taxaw donc foofu daal la affaire bi commencé ñu ko wut ay ay kii ay benn benn pour def ci sable loué pas mal de benn defe naa premier jour bi rek presque xam nañ def trente yoo xam ne yi sotti nañ ko foofu tey ji aussi gis ngeen li ñu def donc loolu daal ñun daal dañu nekk fii pour société bi li nga xam ne mooy seen feebar lépp lu luñ ci man luñ ci man ñu def ko te yàlla tax dëkk si dëkk bi war a defar dëkk bi loolu daal moo tax action yi def nii ñu defar pour l'instant donc bu ñu dégluwee ci say propos tout à l'heure mooy li nga jot a élaboré mhm. donc dañuy constater que ni da nga indi une nouvelle touche politique voilà si fi nga xam ne moom mooy commune Bambilor ñu d'après constat bu ñu def dafa mel ni aussi une correction venant de votre part ci ñi nga xam ne ñoo nekk moo nekk surtout mooy l'autorité municipale waaw absolument absolument mhm. loolu moom dañ koy dañ koy wax parce que dëkk bi dañ toll foo xam ne fii kenn amul looy yàq mhm. kenn amul looy yàq parce que pauvreté bi bari na fi mais problème yi nga xam ne nawet bi daf koy indi ci ci Bambilor surtout nag aussi ñëpp gis nañu ko mais nit ñi ma am na ñoo xam ne yi seen génn nañu seen kër luy ji faneen am na ñoo xam ne bu ñu añee peut-être reer day nekk problème ci ñoom mais loolu lépp bu amee yow nga jël ay millions di ko def ci meeting pour wanewu man duma def loolu jamais déedéet parce que am na priorité yoo xam ne moo fi nekk priorité yi mooy li sa askan wi li ñuy soxla li nga xam ne mooy seen problème ci loolu la ñu war a taxaw te loolu nag ñun citoyen lañu citoyen simple lañu maa am benn ndombu tànk boo xam ne bii takk naa mm-hmm. sama volonté laa yor samay ambition mm-hmm. ak euh, ma nekk aussi acteur social koo xam ne kii day def mm-hmm. pour pour le développement. donc loolu li ñuy def ni tey yëpp autorité locale bi nga xam ne moo fi nekk muy maire loolu la waroon moom la waroon du moins mais su ko defulee. <laughs> mais duñu xol né ne ko dañu xol ne ñun aussi am nañ ci partition am nañ ci part de responsabilité kenn ku nekk def lo def lo man donc si loolu man maa ngi invité responsable yi fi nekk il y a des responsables il y a des prétendants yoo xam ne dañu nekk candidat candidat ou pas candidat képp ku nekk ci dëkk bi war a mën a defar dara ci dëkk bi moyen yoo am bul ne bul ne affaire bi question de volonté la rek du question de moyen parce que ñun wax dëgg yàlla amuñu fi amuñu lu ñuy coow <laughs> ñun simple fonctionnaire lañu ñu rek nekk nekk béykat aussi donc suñu moyen yu ndaw la ñuy jël yéene ko nit ñi di ko di ko ci def mais loolu nag ci lay invité vraiment responsable yi fi nekk yëpp kenn ku nekk nga dugal sa loxo ci mbir mi pour que dëkk bi mën a normal loolu c' est valable pour Bambilor c' valable pour tous les autres villages de la commune de Bambilor. voilà ñu gisoon tamit euh, système éducatif bi nga xam ne naroon na sooxe fii ci diwaanu Bambilor mooy comme lu ñu débuté tout à l'heure rek. Mhm. donc dañ gis école élémentaire bu Bambilor fi nga xam ne cité nañ ko tout à l'heure interview yu y a def ak reportage ce matin. Mhm. le ministre Omar Gueye jaar na fi ay kàngam jaar nañ si si élémentaire bu mhm. donc nous gis aussi hier rek. Mhm. amoon na benn kit scolaire boo xam ne ñu ko doon à la mairie. au moment où nous nga xam ne foofu la élève yi war a cours voilà n'était pas praticable. <laughs> non damay dagg sa question parce que sincèrement ça m'a fait rigoler. parce que tey bi ma gisee ñu ne. maire daf doon joxe ay fourniture scolaire mm. ay table banc et cetera mm. waaw mais mais yow nan ngay daggal nit mbootu te doom ju doogul nga dagg mbootu te doom ju doogul wala nga ngénte koo xam ne kii ju doogul parce que loolu lañ doon def parce que yooyu am dafa am problème boo xam ne moo am parce que la veille la veille man maa ngi woon baa mi loolu am dëj bu ma doon jàll fa ma toogoon la ñuy wax ne école bi suba kenn mënu fa dugg waaw mais maire mënu woon a def visite ne serait que avant mooy joxe les tables bancs et autres là non c' est bien c' normal mais am na lu jiitu mooy école bu ñu ubbee dañuy wax ubbi tey jàng tey <laughs> mais ubbi ubbi foo xam ne fii yow nit sax mënu fa dugg nooy jàng donc loolu waru woon toog ba duñ ñu di ko wax moom moo waroon a jóg xool ak tànk ak tànkam ak bëtam xool situation bi nga xam ne moo nekk ci école yi

Asu def ci suuf ba nga xam ne xale yi bu ñu xëyee dinañ mën dugg foofu mën jàng seen jàng mm-hmm. donc ñun loolu la def mm-hmm. donc ñu ngi invité maire vraiment mu gën a xalaat di xool soxlay nit ñi di ci daw voilà donc toujours euh, mm-hmm. donc euh, euh, pourquoi cette nouvelle touche politique comme nous l'avons tout à l'heure parce que voilà d'après mm-hmm. reportage que ce matin. la mm-hmm. population commence la part des choses entre un politicien. et un homme politique. ce sont des acteurs, voilà c'est un homme politique moi def lii mm-hmm. donc nous commençons à def la part des choses entre un politicien et un <laughs> homme politique. man je pense je pense que je peux me définir comme un homme politique. Mm-hmm. Eh, parce que comme je xool xam sama jikko xam ni may doxalee. Mm-hmm. xam sama manière et autre là. nga naan ki c'est si si le politicien c'est un mauvais politicien. parce que politiciens yi d'habitude li ñuy def man du ko def man du kenn mënul tax ma fen la du ma wax nit loo xam ne mënu ko du ma la dig loo xam ne duma ko def lu ma man laay def lu may lu may yéenee def mën naa ko wax léegi nag yàlla mooy mottali mais façon bi nga xam ne politiciens yenn yi moom la ñuy def di wax nit ñi pour nax leen man man loolu dus dus sama cër te fas yéene ma def loolu. Mhm. donc moo tax ñu ne. Mhm. au lieu que ñu nekk fii di di di def folklore. Mhm. ah di wax nit ñi loo xam ne gëmuñu ko di leen jéem a naax non non nañuy def loo xam ne lii day day fekk nit kenn ku nekk fa nga nekk. day daf lay laal. maanaam def loo xam ne lii askan yëpp ñoo ko soxla. parce que tali bi ngay wax bu ñu ko defaree. mais ku nekk moo fay jaar man mi wax ak yow dama fay jaar. keneen daf fay jaar. bu dee yoon yi ñuy wax yëpp bu dee électricité bi yoo xam ne dañ ko def. day leeral yëpp électricité bi ñuy def ci dëkk bi ñu koy def veyu veyu tabaski la woon. te boobu ñu ma ba ma koy def dañ ñëw sollicité comme ni ma koy faral di wax rek man du ma jël initiative pour def dara mais lépp lu ma nit wax ma man ci dara lu ma ci man dinaa ci dinaa ko def bi ñu may sollicité veyu tabaski la woon xam nga tabaski ku nekk xam ne insécurité bi nga xam ne mooy am agression et autres bu ñu waxee j'ai compris enjeu bi nga xam ne moo ci nekk ma jël le peu de moyens que j'ai vraiment ak ak ñoo xam ne ñu jàppale nañu ma si ñu électrifier quartier bi donc ñun façon façon boobu la ñuy def nit ñi li ñu soxla dañu leen di fekk si li ñuy soxla ñu wuy leen ci waaw te loolu je pense que pour l'instant suñu moyen personnel lañ koy defee te loolu bu yàlla dogalee su yàlla dogalee ambition yi ñu am ambition ñu am te xam ne loolu sax moo ñu dugal ci lii mm-hmm. pour bëgg commune bi bés bu ñu ko yoree vraiment li nga xam ne askan wi ñoo ko dajale jox ko maire mm-hmm. nga di ko delloo ci askan wi mm-hmm. delloo ci askan wi du question yow yaay toog xool li nga bëgg a def nga def mais da xool askan wi li ñu bëgg nga laaj leen ki nga fekk leen ci la ñu bëgg nga defal leen ñun loolu mooy suñuy philosophie bi nga xam ne politiquement ñun loolu la ñuy doxal. bëggoon nañu xam tamit aussi est-ce que Oumar Gueye Junior le président Oumar Gueye Junior est-il mm. euh, officiellement candidat élection à venir. waaw je peux dire que je serai candidat incha allah. incha allah waaw. Mm-hmm. je serai candidat. Mm-hmm. officiellement.

tali ñoo yàqu làmpa yi ñoo yàqu loolu la nit ñi soxla mais boo defee la neen <laughs> mais yow daa yaay xool la neen nga def ko mais defoo nit ñi bëgg donc ñun loolu la ñuy def maanaam la gestion participative kenn ku nekk la nga xalaat ne lii buñ ko defee mu baax kenn ñu def loolu pour que askan wi mën gis seen bopp te pour loolu lu ñu bëgg a def noonu ñun dañu ne ñun may faral di wax fu ma dem dama koy wax ah dama ne je sais que man mënuma lépp xawma lépp mais nag dëkk bi dama ne Bambilor bu léegi bu léegi ak Bambilor bu njëkk ba du benn mm-hmm. y a des intellectuels mais bu xamante mais nit kenn dafa nelawu tax si léegi mm-hmm. ñëpp a yeew ñëpp a xam mm-hmm. léegi ressources yi fi nekk ressources yi fi nekk duñ ko war a boole kenn ku nekk la nga xam la nga man ñu boole ko ànd pour liggéey dëkk bi loolu moo ñu manqué loolu moo ñu manqué mais du question équipe municipale rek moo war a defal dëkk bi

Mhm. politique c'est-à-dire comprendre voilà est-ce que vous euh, non du tout. Mhm. je suis catégorique. Mhm. je suis catégorique. man am coalition d'ici une semaine. d'ici une semaine je pense que le dina table non man bokk demuma demuma pour le compte ben bokk yakar am na ñu koy xëccoo man mhm. xëccoo ma ben bokk yakar mhm. coalition bo xamné coalition indépendante la boo xam dañuy xool mhm. ku parti même ku ñu bokk ci APR sax bu la neexee nga ñëw bok ci fu way mën bok mo xam les indépendants ñëpp kenn ku nekk dal am nga sa place ci li nga xamné li lii ñu fassiyena taxawal mais encore une fois dewuma pour le compte ben benn bokk yaakaar voilà donc quels seront les mots de la fin du président

parce que Walum Tàkk ça fait trois jours kenn ku nekk ñi ay chauffeur lañu ñi ay maçon lañu ñi kenn ku nekk yaa ngi yor sa becc mais danga teg lépp accompagne ñu ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def dëkk bi parce que xam nañu ne kenn ku nekk am na cër ci liggéey boobu du question kii génn moyen rek parce que daal la preuve man kenn gis gisuma fenn donc ñoom vraiment maa ngi leen di gërëm bu baax di gërëm ci population bi parce que aussi xam nga nit ki boo ko defalee lu mu tuuti tuuti mu reconnaître rek loolu day doon satisfaction te daf lay jox courage pour que ëllëg boo mënee lu ëpp loolu nga def lu raw loolu donc vraiment gërëm maa ngi gërëm ñëpp di gërëm population Bambilor di tàllal ñëpp loxo nag di tàllal ñëpp loxo responsable yi fi nekk ñëpp dañu war a ànd bokk ndey bokk bàyyi l'essentiel mooy ñu changer doxalin doxalinu politique d'abord mais changer aussi li li nga xam ne moo fi nekk ci commune bi vraiment loolu daal laay invité ñëpp képp si mën a jàpp daal man ubbi naa sama loxo tàllal naa la samay loxo mhm. je suis ouvert à tout le monde mhm. am na ñoo xam ne déjà ñu ngi ànd dañu am occasion ñëpp xam ne diw diw diw ñoo ànd mhm. pour euh, combat bi nga xam ne si la jëm mooy éle joute électorale yi nga xam ne moom war a am le 23 janvier 2022 Euh, voilà merci beaucoup donc euh, c'était tout donc dañuy yëkëti li nga xamné mom moy bi rek di leen euh, dig fan yu sur la zone 7 TV inshallah. donc à très bientôt les fidèles téléspectateurs de la zone 7 TV merci beaucoup père. merci beaucoup.